أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وسريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من عمسات سياتيني وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم بارك برب دار الموت مبولومي ماغي لين دي نيو دي لين زياره فاس yëkkati ni ma ko daan defe rek ay kàddu yu gàtt di kàddu yi aji loo ji muy l'organisateur ndax su fekkonte ni màggal gi sama màgga la kon may mujj jël kàddu waaye màggal gi màggaluk borom daarul muxte moo tax kaddu yi ma fi yëkkati kaddu yi cant rek lay doon ci ñi ma àndaloon ci lootaabe gi muy organisation bi ak ñi nga xamante ni dugal nañu seen loxo ci bisub borom daarul Muxti bi ak Serigne Touba su ma noppee itam wax leen incha allah bu ñu ko fekkee màggal gi kan lañ koy tuddee déwén gannaaw bu nu sante yàlla. bi mu nu mayee nu dooroon ko ci ndigalu Cheikh Abdul Xuddus Mbakke ren di ci ñaar fukki at ak ñaar at mu njëkk ma ñu tudde woon ko jàmbaar ja daan wax ni Daaru Muxti day dugg naa ko waxtu wu nekk génn naa ko waxtu wu nekk ngir bëgg mu jag di Cheikh Mamadou Hawa Balla yal nañu ko sunu borom fayal maa ngi fàttaliku ba ma ko ko tuddee cérémonie bi Serigne Bachir moom Cheikh Abdoul Khoudous daf ma ni lii nga wax ni moom nga nar day ni at mu jot danga koy tuddee kenn ci njabootu borom daarul moo yi ñoom day te at mu njëkk mi nga tuddee ko sëñ mu daw balla boo leen tàgg woon day ñoom ñëpp danañu ni la at mu jot tuddee ko sëriñ mu daw bal adduna di dox jëkk sëñ mu do abib sëriñ Cheikh njaboot gi mat ren ñu tuddee ko Serigne Cheikh moom Serigne moom sal Asta Dieye Sall moom Cheikh Mamad Haw Ball jàmbaar jooju nga xamante ni li metti daarul muxti ci moom rek mooy teel ga fekki maamam borom daarul muxti ndax fanweeri at ak ñett rek la fi def doonoon jëmm ju teel a sotti dinaa ci dellusi si ginnaaw bu ma yëkkatee kàddu yi cant yi ba noppi ndax Cheikh Abdoul Khoudous Mbacké màggalug Daarul Mooti daf daan wax ni wax ci sa waajur de dafa bokkul ci ak nite waaye ku woo ay nit ba ñu ñëw nga war leen wax ci la nga leen di doyee kon dina dellu siwaat ci sëriñ Cheikh moom soxna Asta Dieye Sall kon kaddu yi rek lay yëkkati doore ko ci ki toog toogaayu borom daarul mooti nuy ñaan sunu borom yàggal ko fi te wéral ko muy sëriñ Basiru Anta Ñang ak rakkam Serigne Khalid Mbakke ak njabootu borom daarul mooti gépp di sant itam nag sama yaakaar di Serigne Mbakke moom Serigne Moustapha May mi nga xamante ni lu ma def ci ndigalam laa ko def di ko sant di ko gërëm ci taxawaayam moom njabootuk sëriñ Moustapha May mun a gépp di sant ak a gërëm njabootuk Cheikh Mahamad bal la dale ko ca Serigne Moustapha Soti Jaxate yàlla na fi yàgg lool Mbàkke te wér ba ci Serigne Khadim Thiat waaye cant gi dañ koy teg ci loxol soxna Asta Dieye Sall Mbakke ñu gën koo xam ci turu soxna Ndey Mbakke moom Serigne Cheikh Asta Dieye am na lu ma waxoon ci rajo ba ni li ma doon tiit ci bis bi day du am ndax waa kër sëñ moo daaw bal la dañoo man seenug nit doon na ma metti lool ñu egg ca bis ba soxna day rek ñëw wala mu ñëw ñëwin wow dañ naan sëñ Cheikh Assa Dieye de moo fi nekkul waaye bu fi nekkoon du demee nii waaye la ma waxoon ay càmmi ñam a ngi nii ak ay wayjuram ànd ak moom mu mel ni sëriñ Cheikh Assa Dieye ngi teew kon soxna Ndey yónni na fi yabal na fi ay càmmiñam ñu indi fi teraanga yoo xamante ni bii defar na bis bi di sant sama xarit di sama sëriñ di sëriñ Basiru Mbàkke moom Cheikh Abdul Xuddoos teel na fee xëy si lool ni ma woon dinaa joxe ndigal waxtaan naa ci ak sëñ Moodu ngir njabootu Cheikh Abdul Xuddoos ñëw dugg ci délégation bi ndax sëñ Cheikh Assa Dieye kat waajur dong la sëñ Moodu Balla doon ci moom waaye li ci des lépp Cheikh Abdul Xuddoos ba mu matee dal moo ko yóbbu Mirina fa la jànge alquran ba mu ñibbee àjjana itam moo ko toppatoo kon noo ngi sant Serigne Bachiru moom Serigne Abdul Xuddos Mbakke moom it indi na fi ay teraanga di sant sama xarit di Abdul Xaadir Jiililoo nekk ca Ndakaaru moom itam at mu jot day ànd ak man bis bi yónnee na fi loo xamante ni bii defar na bis bi di sant fédération daayira sëriñ Moustapha Maymouna ndax sëriñ Cheikh Khady islaahu daaray ni la ma boole loon ñoo daan taxaw organisation màggal gi ren bi ñu ma xamalee ni naa leen jéggal taxawaay ba ñu doon taxaw fédération daayira sëriñ Moustapha May ci njiitul sëñ Modou Habib Diouf moo ko taxawe di sant sëriñ Mahamadan moom Serigne Khalid Mbakke bâche bi moo nu ko jox te laaju ci dara kon moom itam Mbakke noo koy sant di ko gërëm di sant mbootaay gi ñuy wax daaray sëriñ Moussa Ka Serigne Ahad Ka jiite ko moom it yónnee na fi ay teraanga ci turu mbootaay googu yépp di sant itam sëriñ Koso Mbakke moom Serigne Khalid moom it yónnee na fi ay teranga yu baree bari waaye di sant jàmbaari lislaam yëpp di Cheikh Abdourahman Mbakke moom Cheikh Abdoul Khoudous yàlla na fi yàgg lool Mbakke te wér léegi la yónnee Alioune Badara Lo ni ko boo demee nel mbay gi jàng nañu téeméeri kaamil ak juróom-ñett fukk ak ñaar defe naa ni téeméeri kaamil ak juróom-ñett fukk ak ñaar 182 kaamil defar na Sénégal mu ni yool ba nag def na ko addiyee ka doon yónnee di Serigne Touba ka mu doon yónni di borom Darou Mouhty waaye def na ko itam addiyee yi Serigne Cheikh Asta Dieye Mbacké kon Cheikh Abdourahmane noo ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm di ñaan sunu borom yàggal ko fii te wéral di sant sama doom mbéri saar at mu jot day waajal ay teraanga indil ma ko ren nag yemu ca dafa laxasaayu carte d'invitation bu ñu fi joxe mook sama jarbaat bi di sama doom Mohamed Lam ñoo ko joxe kon soxna Mbéri Sarr ñoo ngi koy sant di ko gërëm di sant itam sama doom mu Ndaw Sill moom waajal na ay teraanga indil ma ko may ma koy ñaanal lu mu man ren bu déwénee mu man lu ko ëpp ndax man képp kuy sama njaboot war nga jàpp ci bis bi ndax wóor na le ndax wóor na ma ni bis bu ma faatoo waxtu wa jot te defuñu ko fa ma tëdd du ma tàlli su fekkee ñu bëgg lu ma neex fa ma nekk nañu ko fannoo bu ñu ko mënewul ni ma ko mëne it ñu defee kon bu doon dañuy daje wàcce ay kaamilit buñ ne mbay géey faatu na nekkatul li ma gën a loon daal mooy bis bi ñu wéyal di sant itam nag njabootuk sëriñ Mbakke soxna Tooro soxna Fati Mbakke soxna Njaay Mbay ak soxna tuuti ñang moom itam indi nañ fi ay teraanga yu baree bari di sant mbokk yi nekk bitim réew te jàpp ci bis bi ndax man dama sant borom daarul muuti du ma ni ab seex laa de waaye borom daarul muuti daf ma booleeg ay doom yoo xamante ni Serigne Touba lañ ma jàppee di samay doom barki dem laa jóge Paris grand mbubb bii ma sol Seydina Omar Ba ñoo dem ba dix-huitième mama Bazin bi jaay Jesner mu ni ma grand mbubb ba ngay sol ca bis ba day maa koy jënd daal di jënd fukki meetar soxna am soxna awataal ni ko may fay ñaw bi de daal di joxe fukki junni ak ñaar soxna awataal moo fay ñaw bi Sidna Omar Ba moo jënd basin bi kon ñoom itam maa ngi leen di sant di leen gërëm te di leen boole ak ka yónnee ak ka mu yónn di sant Serigne Mamadou Ndiaye ca Paris moom itam yónnee na fi ay teraanga Serigne Ismaïla Gueye moom itam di sama doom nekk Lille sëriñ Pape Tambidou étudiant moom it nekk Lille médecin docteur Alioune Dior nekk Liège ca Belgique moom itam yónnee na fi ay teraanga. ni nañ ko ko defal ci bisu boroom daarul moxti bi sëriñ abbas Dieye di jëwriñi daayira Antwerpen wala Anvers ca Belgique moom it yónnee na fi ay teraanga ni nañ ko ko defal ci bisu sëriñ Touba bi ak borom daarul moxti sëriñ Basiirou Fall nekk ca New na fi ay teraanga ni nañ ko ko defal ci bis bi soxna Fat Caam maam jaara waa waajuram di taalibe sëriñ euh, Amsatu Mbakke moom borom daaru ti mu jiite daayira soxna jaara bi nekk Paris mook soxna Marème Seck ñoom itam yónnee nañu fi ay teraanga yoo xamante ni defar na bis bi sëriñ Birane Seck di jëwriñi daayira jaawartulaa ca Paris ñoom ñoo jotoon ndigal ci sëriñ Abdoul Aziz moom sëriñ Khadim Awa Ba ngir ñu organiser ma cérémonie de dédicace ci téere bi ma bindoon ci màggal gi ak téere bi ma bokkoon ak Sidna Omar Ba ñu organiser ko le 13 novembre ca Paris muy sëñ Birane Seck ak daayira Jaawartullah ndax cérémonie bi waa Italie ñi ngi koy seetaan wa Paris ñi ngi koy seetaan ndax Jaawartullah TV ñi ngi koy jàllale en direct ba ñu tàmbalee ba léegi kon sëriñ Birane ak sëriñ Bassirou Cissé mi yore cellule de communication bi ñu ngi leen di sant di leen gërëm di sant Serigne euh, Baye Fall Thiam moom moo yore xasida online di chaîne bu nekk ca Italie moom itam ñi ngi jàllale cérémonie bi en direct kon ngir bañ a guddal euh, damay dellu siwaat rek ci ñi nga xamante ni bii jàpp nañu ci bis bi sëriñ ma lay Jóob di borom këru maam Fati taxawaay bi nga xamante ni bii at mu jot dana ko taxaw ci bis bi moom itam taxaw na ko koso Mbàkke Géey at mu jot lu ñu fi naan ci boisson moo ko fi indi moom it taxawaay boobe taxaw na ci nga xamante ni nijaayam la ñu tudde bis bi di Ibrahima Sall président modèle Cheikh Niang mii la fi yónnee mu indi fi ay teraanga ni nañu ko ko defal ci bisub nijaayam bi euh, ñi nga xamante ni bii ñoom ñëpp dugal nañu seen loxo ci bis bi mel na ni bu ma fi toogee di ko lim day guddi lool waaye daal nañu xam ni waa daarul mooti seetaanuñ ma ci bisub borom daarul mooti bii ndax mbay géey day man nga koo bëgg man nga koo bañ man nga koo bañ a jubu waaye defe naa ni képp ku dëggal rek man nga ma seereel sama diggante ak borom daarul mooti ak njabootam ndax chama ma Hawa Balla mi ñu njëkk tuddé bës bi man defoon na ni du génn aduna ku yalla bind da nga waccu liggéey waye man demoon na ba japp ni sëñ Mamadou Hawa du fi kon tay njabotam gi bu ñu téwé ñom ñëpp dama leen di sant di leen gërëm kon ngir ma jéxal sang bi nga xamanteni mom lañu tuddé bës bi bis na noppal wajuram lol am na bayit yu ma defoon ci moom maa nga ca doon wax ni moom Serigne Cheikh Assa Dieye day ku gudd fan la lool bu dee baatin la waaye ku gàtt fan la lool bu dee zahir lii gudd fan mooy ñëw fi rekk jëf fi lii gàtt fan mooy yàgg lool te yées moom Mbàkke nag dafa ñëw rek jëf la mu doon jëf dem ba muy génn à l'extérieur dem Gabon dem bitim réew ba muy wutal way juróom sëriñ moo daaw ball ay xàll ndax booba ngir nga tukki ay xàll ay am booba toll woon na foo xamante ni mag ñi dañu doon wax ni moom day xamoon nañ ni mënu fee toog ndax dafa xëy rek sotti fanweeri at la fi def ak ñett di ko xamante ni maamam borom darul mooti daf daan bég ci moom ndax bi maamam di ñibbi àjjana booba sëñ Cheikh Assa Dieye am na ñaar fukki at sëñ Cheikh Assa Dieye sëriñ Cheikh Khady El Hadji Koso Bey ak Daaru Koso ñoo bokkum at 1923 la ñu sañ Koso 1923 la sëñ Cheikh Assa Dieye feeñ ci la sëriñ Cheikh Khady feeñ ci la El Hadji Koso Bey feeñ may sant itam nag El Hadji di sama mag di sama xarit moom itam yónnee na fi ay teraanga ngir def ko ci bis bi kon daal e, mbégte munta romb mbégte Serigne Cheikh Assa Dieye am na ñooñ xamuñu ko woon waaye mel na ni lii dana tax ñu xalaat ni kan moo doon ndekete sëñ Modou Awa Balla amoon na ku ñuy wax sëriñ Cheikh Assa Dieye mu teel fee jóge lool bëggoon waajuram lool wala bëggoon ay waajuram lool ndax Mbàkke fanweeri at ak ñett yim fi def bàyyi na fi am Serigne Modou Awa Balla akum soxna Assa Dieye Sall mi toog dogal Cheikh Mamadou Awa Balla Kara ca daara ji la wàcce ab liggéey ci ak tuut tànk nuy ñaanal soxna ndey yal na nga sut sa maam Cheikh Mamadou Awa Balla aw fan te mu ànd ak ak wér damay bañ a guddal daal waaye sama xol dafa sedd ndax man sëñ Cheikh Assa Dieye xawma ko waaye maa ngi ko doon gëstu te it yàllaa ko def ci sama xol maa ngi fàttaliku bi ma gënee doon tuut tànk am na teertu guñ fi doon teertu kuñ doon wax soxna mbenn mbeng defe naa nekkatul fi nu toll muy woy seexum yaay assajeey gor saay na may jooy taban booba gone la kon mbake yal na ko turandoom sëriñ tuuba maamam borom darul mooti ak way juram sëriñ Modou Awa Balla dëkkoo ngir jeexal cant yi ñii ma bokkal koñ bi nga xamante ni seeni maam sama maam Masayer lañ fi fekk Masayer Sill lañ fi fekk si woon organisation bi ñoo ko àndoon ak daayira fédération sëriñ Moustapha May kon waa koñ bi ak gone yu góor yi nga xamante ni tant bi ñoo ko doon def ñoom itam maa ngi leen di sant di leen gërëm di sant sama waa kër di teg cant gi ci loxol soxna Maymunatu Mbakke bintu Cheikh Abbas Mbakke ak njaboot gi yépp ñoom it ba ñu jàppee bis bi ba léegi tëdduñu tooguñu muy magum kër gi di Faati mu ndaw ak Awa Amar maaneloo ñoom ñëpp jàpp nañu ci bis bi soo soxna Faat Isa Diop sama taw bee bàyyi ko pour organisation bi moom it at mu jot noonu yi la ciy def kon daal damay bañ a guddal waaye maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ni sama diggante ak borom daarul mooti wala fi nee na kenn ku nekk la nga namp moom ngay tokkamtiku te man ibrahim Fat job, mi te di ci pencum bopam mom la nam Massayer sel mo jur bac sel mu jurma ma Massayer Sell la borom daaru mu ci ñeuk am ci jébbal bo demé ci marché Serigne Moussa Ka sering bis bi Serigne Touba yoni borom daaru mu ci ndar ba mu ñëwé ba muy taggo ak mom la mam ram talal borom daaru mu ci ay loxom ne ko jébbal na la sama bop adina ak alakhirah serigne Moussa kadi bisub keroog la ko sayar sayidu jébbal mbiram fa bari mooy sayidu texeg murit yi le touram way seere mo njëkk a jébbalu keroog fa bari bi borom daru muti di bayiko ko bari di dem mbakke bol serigne fallilu mbakke la ko niko ni ko yaa koy tungóomi fi ba ba di yegg mbakke bol ay leetara ngi fi yu ko sëriñ fàllu bind di ko ko mu jël domam bu jigen bi mu won soxna maram Balle sil di magi sama bajjan bi nga xamanteni mom la fi déssé muy soxna Fatima du sil may ñaan suñu borom yagal ko fi te wéral ko tax gisatuma Masayer gisatuma Bac sil mom Fatima du mi mom lay xoole Masayer mom lay xolé Bac sil yalla dogal itam bi borom Daaru Muti bayiko ko kayor ci weer wii la ñu sañcoon Daaru Muti juróom-ñetti fan ci rakkaati gàmm ba ñu sañcee dëkk bi sama waajur Cheikh Ousmane Mbacké Noreyni ak euh, euh, kii jam chauffeur mët jam chauffeur mët jam laa mët loo jam ñoom ñett ñoo njëkk a feeñ ci sanc bi sa maama njëkk a jébbalu ci borom daaru sa bàyyee njëkk a feeñ ci pàkk bi borom daaru muuti làqu sama maam gàddaay ni du tiim borom daaru muuti ci suuf fukki at ak juróom-ñaar mu def ko Ndakaaru màggalu Tuubaa gi mu mujj màggal si kër sëñ Abdourahmane la daan dal daje fa ak sëñ Matar Samba ba ñuy tàggoo mu ni ko sëñ Matar nun de ay mag la ñu te gis yombut bu fekkee sëñ du Khoudous Jawa ngi fii waaye juróom fekkee na ko di ko ni sëñ Matar Samba damaa bëgg ëllëg bu nu borom daaru séddee ba noppi nga sedd ma ci sa wàll sëñ Matar Samba ni ko nungul naa la ba tàggoo. ca weeru koor wa sëñ Matar Samba wàcc ab liggéey am na barab boo xamante ni doomi ndeyam sëñ sëñ Modou Matar Diop waajuru sëriñ Modou Fatigué fee ca tool Matar ja foofee la sëñ Matar Samba tànnoon daa fa def ay barkeeloom ak ay ñaanam ba mu wàccee liggéey ñu dem wutal ko fa kër ngir denc ko fa far ñu denc ko bayit ñu ni sëñ Modou Awa Balla sëñ Matar Samba de wutaloon nañ ko kër tool Matar ja kon de dañuy dem suulaat kër ga sëñ Matar bàlli leen déedéet borom dana ñëw ci a sa di ajjuma laylatul xadar saa maam wàcc ab liggéey masayer ndakaaru ñu dugal ko ci kaaru rab londi ba mu ñëwee sëñ moo daw balla ni yóbbu leen ko borom kër gaa nga noone jàpp naa ni mom mo teud ci kër ko xamanteni bi bañ koy wut taxul won ta mel ni lamu ñaanon señ Matar sama ñaan ko suñu borom nungu na ko baytee ngi ni tok sama bay ne bo borom tudd tëdd tudde señ mo Bal dan ko wax nan ko ah ma Masamba nga di noko tudde muniko mu ni ko néeg ba borom daaru muuti tëdd Modou ni ko kon de may bajjanam ba bu muy dem kër lepp señ mo Bal la ko ko defal manit barkelu na ci sama mbeyte nga ne mi ngi jang ci sem kon dal ci gattal dama bëgg gaay yi xam ni man su fekkon sañon na ma def li ñuy wax tatu yaaj fi gaay nañ dañu wax na mbey gi da daru da daru muté luma dugg ñu ne bu ngeen deful ko daru lolu di le sëñ bi doon wax ci li irkan tag woowu day duma ci mer mukk mukk mukk mukk mukk mukk Eh, sëñ ma daw bal sëñ fallo Gueye fu ma ko mas a gis fuñu ñu mu jox ma junni sëriñ Basiru Astulo fu ma ko nuyoo mu jox ma junni sëñ Moussa am sotu jaxate yàlla na fi yàgg tëwéer bi ñuy ak jumaa ji dafa ñëw ni sëñ Basiru Abdou Khoudos ak Cheikh Lo woo leen ba ñëw mun leen wutal leen mbay gii mi ab saleer ndax jumaa ji kat kere bi sëñ Moraw bale tegee xeer yi ba tey lu ngeen ci bëgg a xam dat ba kañ na moo leen koy wax ñu ni ko waaw danañ ko wutalub salaire ba sëñ Moustapha demee Cheikh Lo ni sëñ Bas nan wut ay yat saa fu ma nuyoo sëñ Moustapha rek man rek maa ko mën a reeloo su ma nuyoo mu ni ma mbay ana sa gaaye ma ni ko Mbàkke day sama noon bu mag boobee di Cheikh Lo moo ni sëñ Bas nan wut ay yat sëñ bi ne ma moo na ñoom day ni ñu wutale ferrailleurs yi ak maçon yi ab salaire loolu laa bëggoon ñu wutal ab salaire kon euh, foofu laa koy yemale di sant yëpp soxna Ndey bég nañu lool sëñ Abdoul Aziz ñoo ngi la koy seereel ni sa mag ji ñu ko tuddee ren day taxawaay bi rafet na lool kon ngir jeexal ñu ñaan sunu borom fekke ko waye déwén ke kat ba di wax naan yaram ci ndey la mom yaram ci bay la bi yaram nga doy nga mbacke bal la cheikh bamba mam je mo rawon sodani bu du koon ku de di dem nirani borom arafa cheikh mustafa maymuna mom lañuy tudde magal gi déwén salamu alaykum ورحمة الله تعالى وبركاته